mais malgré ces circonstances en club, il y a des performances en club, mais on ne te voit plus en équipe nationale. C'est quoi le problème peut Il y a une explication. Peut-être qu'il y a des gens qui savent Pape Aliou, Pape Ndiaye, en sélection. Oui, je pense que honnêtement, que la seule personne qui est capable de répondre à ça, c'est le sélectionneur. xam nga man joueur kese la ne woo suma bob équipe nationale je pense que équipe nationale Critères de sélection yu war tax nga ñëw mooy nga jouer nga régulier et que ngay jouer bu baax après am a une considération est-ce que qui jikko yu mu yor mën na méngoo ak li équipe nationale est-ce que bu ñëwee du yàq tey esprit wu équipe nationale est-ce que du yàq esprit wu groupe bi yooyu yooyu yëpp buñ ko euh lolu je pense critères yoy moy tax coach wax diw dinaa ko woo wala diw du ma ko woo donc man ci suma côté lepp lu nga xamné daf may soriloo équipe nationale dama koy jéem moytu damay jéem dem ci club bo xamné ne damay jouer damay jéem dem ci club bo xamné ne damay fës damay jéem dem ci club bo xamné ne damay def affaire yu bax sama ay jikko dama koy jéem xolaat pour pour ñew équipe nationale parce que joueur le Graal mooy équipe nationale c'est c'est c'est une énorme fierté

ah wa xam nga lolu c'est c'est relatif man mën naa gis ne lolu mi ngi fi yow mi di wax ak man meun nga gis ne lolu nekku fi lolu mom xamna dañ koy dañ koy baye ak sénégalais rek voilà mais ça, yu ma xëyee ci lolu lay jéem a nekk bien m'entraîner être performant être régulier jouer me battre pour euh, aspirer à une. lan moo problème ak Aliou Cissé parce que ñaa ngi problème. <laughs> je je ne sais pas je ne sais pas. problème. je ne sais pas je ne en tout cas man awma benn problème ak moom moom it yaakaaruma ne su amee rek peut-être na ko wax musuñu ko wax pas moo wax lii wala pa moo def lii moom it musuñ ma wax moo la waxal lii wala moo la moo la defal nii euh, toog naa toog jëm naa ko woo bon mënatu ma jot ko daal xaw a commencé di jafe après nak buma insisté insister ce jot ko jafé ci man tam ci la ci la ci la ci la arrêté ah, ci arrêté parce que nak euh, tam euh, quoi qu'on puisse faire man je me suis toujours battu pour avoir euh, pour avoir ce que je mérite voilà tay ci suma carrière au footballeur je me rapproche plus de la fin que du début parce que boo laaxee 30 mom donté dese nañu lu bëri mais tam li woy mo ëpp donc yo xamné nak nag jotuñ ko fi won def bo ba légui du tay lañ koy commencer voilà xawma lan moy le problème jéem naa wo woo. envoyé naa ko ay message yàgg na yagna yagna waaw période bobu la ko gëj dégg. euh au Cameroun voilà non après après. oui avant avant avant la CAN avant la CAN au Cameroun. après un jour gis ci conférence de presse kenn laaj ko ndax dafa am un problème ak man et ça m'a rassuré parce que mu c'est un garçon que je, ce sont ces mots, c'est un garçon que je connais bien, que j'apprécie. Waxtay ay affaire yu bax ci man ah ci la togaté ma gëna ma gëna sante yalla parce que le connaissance sou sou lenen amone xamna dina ko dina ko wax sénégalais. Su ma gisee su nga wax daf mel da nga am lula lula metti au fond ba légui surtout ko surtout sa la ko ñëw sélection sa kanam day feñ. <laughs> Non du lula metti xam nga xam nga aduna mom lu nekk ak ñing koy jëlé parce que xam nga lenn dafa am dama koy wax souvent euh, yaa ngi nan amna lu ci metti mais à côté amna lu ci neex parce que tay man fi la nek, nekuma ak suma wa keur su date FIFA amé joueur yeb di voyager dem sen keur man damay voyager ñew setti suma njabot donc amna une raison d'être triste parce que je ne suis pas appelé en équipe nationale mais j'ai 100 000 autres raisons d'être heureux aussi je viens je profite de ma famille je vois la famille je viens y projet un projet, taxaw ma mën ko ma mën ko faire xam nga gis dans la vie pour moi. bul nangu rek figé fenn quelle que soit la situation bu la présenté il faut trouver le moyen d'être heureux voilà parce que la vie elle est elle est, elle est dure mais elle est belle aussi. l'équipe nationale te manque ou bien. oui elle me manque bien sûr l'équipe nationale me manque parce que bu ñu waxtaanee dëgg rek maangi ci maangi ci maangi ci dara <laughs> non je me je me sens bien tay encore une fois j'ai pris de l'expérience euh, je suis en pleine possession de mes de mes capacités physiques xam nga bu am expérience bu bu je pense que j'aurais fait du bien à l'équipe nationale honnêtement je dama mës a waxtaan xam nga mu ne ma pour un joueur lan mo bon musuma fa jaar tay jaar na fa alhamdulilah ci luñu yaakar ñaawul mais dafa am le sentiment de amna lu dess lolu lolu kese la mais su ñëwee baax na su ñëwul su ñëwul baax na sant yàlla toujours prêt bu ñu la waatee toujours prêt toujours prêt aujourd'hui encore plus qu'hier on est prêt mais tranquille tranquille lu ñëw ñu santee ko yalla en tout cas lenn leer wa waaw continuer à travailler on va continuer à jouer, Inch'Allah. On va continuer à bien jouer. après on l'union, l'union, lu ça au moins personne personne ne peut nous l'enlever on va jouer dans nos clubs et on va bien jouer inch'allah. La prochaine CAN également. oui la prochaine canne, pourquoi pas la prochaine canne, pour en tout cas man de ma bête, ma bête, parce que euh, je suis compétitif Je au club je suis compétitif Euh, kuy wax ci sa bopp doo juum mais je sais que je suis un vrai capitaine parce que du ma kuy pourrir groupe du ma kuy yàq groupe du ma jouer ay n'importe quel jeu wala dit non non man euh, suma club maa ngi fay door a ñëw y a de très grands noms mais dama ñëw ñu boole ma ci capitaine parce que quand même am na loo xam ne maa ngi koy wane su fekkee na ci club lañ koy def rawatina suñu dëkk bi nga xam ne tey amuñu lu ko amuñu lu ko cher mais il ne faut pas faire de bruit il faut travailler sans tambour ni trompette après lu le yàlla jox rek nga jël kese merci Pablo. merci à